الحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ واحضر لنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بظفره بسم الله سسنا وسما وقت تريبور الرحمن بور بي أجيرم بولم مدافون تأتينا الرحيم كي أجيرم بولم جلي الله تعالى خير tanzilul kitaabi lii wasal ak téere la min allah bu tukkee koo ci yàlla de al kay aji not ci nguuram al kay aji xereñ ci jëfteefam de alquran ji nag ko wàccee ci yow yonent moo ko wàccee mu jugee koo yàlla mi nga xam ne moom moo not nguuram de moom mooy ki nga xam ne moo xereñ inna nag ñun yàlla anzalna wàccee nañ ilayka jëm ci yow muhammad alkitaaba alquran bil ci dëgg de yow yàlla wa sallam yàlla ma wàccee ci yow alquran muy dëgg de yàlla jaamu muxlisan ngay ndax moom rek moo yelloo ñu jaamu ko de kenn yelloo ñu jaamu ko de walladina ña nga xam ne ittaxadu jàpp nañ min dunihi lu dul moom te mooy kelemi awliya ñi di way méngoo te mooy yéeféeri màkk yi ñoom wax nañ ne maa naabuduhum jaamuwuñ leen ñoom kelemi illaa yuqarribuna illaa yuqarribuna ndere jegeñ ilallahi jëm ci yàlla zulfa ak jege de ñoom yéeféeri màkk nag dañoo wax ne seen kelem yi ñuy jaamu ñoom amuñ ñoom amuñ kàttan pour mën a jaamu yàlla direct waaye xërëm yi lañuy dox seen diggante yàlla mu nekk seen waasita eh, eh, eh, kii xërëm ñoom ñoo mën a àgg ci yàlla ñoom ñu àgg ci xërëm rek moo tax ñu ne jaamu gi ñu jaamu xërëm yi ñu defuñ ko loolu jege yàlla rek lañ bëgg waaye loolu yëpp nar la dañuy wax rek def inna allaha naka yàlla yaxkumu dana mu àtte baynahum diggante seen fii maa hum ca lañ nekkoon yaxtalifuuna di wute fii ci mbiram diine de yàlla nag dana leen àtte bu demee pencam yàlla xërëm yi ñu doon jaam ak yooyu yëpp buñ demee pencam yàlla yàlla dana leen àtte inna allaha naka yàlla laa yahdi jubalti man huwa ka moom kaadibun ak nar la mu de kaffaarun kay weddi akoon yàlla nag képp koo xam ne dangay ngay fen da ngay yàlla di ko sàkkal bokkaale ak doom di weddi yàlla di jaamu keneen ku moom yàlla du ko jubal de law araada allahu donte na moon na yàlla an yattaxida mu jàpp wala dan doom comme ni ngeen ko waxee lastafa kon dina tànn mi maa yaxluqu ci lam bind rek maa yashaa'u lu ko soob su ne dangeen a wax ne yàlla dafay jàpp doom te loolu ngeen wax kon yàlla dana jël ci lam bind lu ko neex mu def ko doomam de mu fassiru la bi mu ne malaaka yi wala wóorul ayni subhaanahu tudd na ma sellam huwa moom laahu mooy yàlla alwaaxidu kay kenn alqahaaru kay notaakonde xalaqa bindi na samaawaati asamaani juróom-ñaar wala arde suufi juróom-ñaar bil xaq ci dëgg moom moo bind asamaani juróom-ñaar ak juróom-ñaar de seen yàlla yi ngeen di jaamu ñoom binduñ dara de yukkawiru dem na xarafe al leyla guddi ala nahaari ci bëccëg de wa yukkawiru dem na xarafe an nahaara bëccëg ala leyli ci guddi jàngatoon nañ ko maanaam de wa saxara tàggat naa shamsa jant wal a ak weer kullun képp ci ñoom yëg lii dana mu daw ci fulugam ci fulugam de li ajalin jëm ci dig musamman ba di buñ tudde te mooy pencam yàlla de ala dëkk wa moom al aziz mooy aji not ci nguuram al al gafaaru mooy aji baal ay xejjam de al xalaqakum bind na mu leen min nafsin ngeen tukkeekoo ci bakkan waaxidatin ba di benn yàlla nag moo leen bind ngeen tukkeekoo ci benn bakkan de yàlla moo leen bind ngeen tukkee koo ci benn bakkan mooy aadama yéen ñëpp ci aadama ngeen tukkee de zumma jaala topp mu def min haa tukkee ci bakkan boobu zawjaha jabaram ta mooy Awa de ba mu bindee aadama nag mu bind a ci faaru càmmooyo mu bind ci Awa de wa anzala wàccee na lakum ñeen leen min al aami tukkee koo ci juri kat ci juri kat yi samaaniyata azwaajin juróom-ñetti xeet yàlla nag wàccee leen ci asamaan juróom juróom-ñetti xeet ci ay juri kër ak ay juri kër de mooy lan mooy gëlëm ak nag ak bëy ak xar yàlla moo leen ko bindal mun defal leen ko juróom-ñetti xeet de góor bu gëlëm bu jigéen ak gëlëm bu góor nag bu góor ak nag bu jigéen xar mu góor ak xar mu jigéen bëy bu góor ak bëy bu jigéen muy juróom-ñetti xeet de yooyu yëpp ci asamaan la jugee yàlla moo leen ko bindal de yaxluqukum dana mu bind leen fii butuni ummaatikum ci biiri ndey seen xalqan bind min baadi xalqin fa gannaaw ak bind de yàlla nag bindi leen yéen doomu aadama mu bind leen ci seen biiri ndey bind gannaaw bind gannaaw ba nga nekkee toqantal ma nii gannaaw ba nga nekkee toqantal ma nii ah, toqantal ma nii gannaaw ga mu def la ngay ah, ah, lumbu gannaaw ga mu def la ngay suux de fii wulu maatin ci lëndëm salaasin ya ñett de mu bindal nag ci ñetti lëndëm mooy lëndëm ak biir ga ak lëndëm ak ruum ga ak lëndëm ak masiima ga mooy àndaale ba ci ñett yooyu yëpp yàlla moo leen euh, moo leen bind ci ñetti lëndëm yooyu de zaalikum kooku seen def loolu laahu mooy yàlla rabbukum koy borom seen de kooku mooy yàlla mi nga xam ne mooy seen borom de waaye du këram yi dawu ñeen la ko al mulku nguur laa ilaaha de buur illaa huwa moom de ba annaa tusrafuuna naka ngeen di soppandikoo ah, jaamu ko ànd ak taxaw ak la yi de walis taxaw ak la yi de inna allah in takfuru ndem weddi nañ yéen yéen yéen yéefee su fekkee weddi ngeen fa inna allah naka yàlla ganiyun aji doylu moo ankum walis leen de su fekkee da ngeen weddi yàlla gëmoo leen ko gëm seen xelam yi yàlla moom doylu na walis yéen de yàlla doylu na ku doylu la ku doylu la sax ci jëmmam ñoom yéefee nag dañoo wax ne yàlla moo bindi kéeféer moom moo ko gërëm waaye waxul dëgg de yàlla de moo ko bind waaye gërëmu ko de buur ne wala yarda gërëmul li ibaad yi ñeel jaam alkufra kéeféer de yàlla gërëmul kéeféer moo ko bind naam waaye gërëmu ko wayn tashkuru ndem sant ngeen bëggam ko yarda mu mu mu mu gërëm lakum ñeel leen de bu ngeen ko bu ngeen sante yàlla bëggam yàlla yàlla daal di leen gërëm de wala taziru defu leen waziratun bakkaar wisra uxra bàkkaar ak beneen bakkan de summa marjiukum topp delluwaay seen ilaa rabbikum jëm na ci borom seen de fa yunabbiukum mu dana mu solo leen bimaa kuntum ca la ngeen nekkoon taamaluna den doon jëf de innahu naka moom buur kawe na alimun aji xam na mu di zaati suduri ca la nekk ci dënn yi de lu nekk ci xol yi yàlla moom xam na ko de wa iza massa ndem laal na al insaana kéeféer durul lor daa mu ñaan rabbuhu boromam mu nii ban muy aji dellu ilayhi jëm ci moom de yéefee nag yéen boo xamee ne lor dal la ko ñi nekk ci géej di tukki waa ah, ak géej gi bëgg suux ak ñoom gaal gi bëgg suux ak ñoom wala ñu nekk ci njàqare mu mën a doon ñoom dañuy ñaan yàlla de dañuy ñaan yàlla ndax xam nañ ne seen xel yi mënuñ leen a jox dara yàlla dañuy tàllal loxo ñaan ko rek duma ilaa xawalawu wu ah, ilaa xawalawu topp ndem xéewal na leen ndem may na leen neamatan xéewal wala yeesu may daa xawalu topp ndem jox na leen ne amatan xéewal mi nu tukkee ko ci moom na si ye fàtteef maakaana la ñekkoon ya dawoon na di jaamu yi lay jëm ci moom min xablu ci njëkk de te mooy yàlla yàlla nag bu leen xéewalee musal leen ca gaal ga jox leen seen càkkute wala ñu nekk ci njàqare ñaan yàlla ba mu leen ci njàqare yooyu ñu nekk ñu fàtte waat yàlla jubluwaat seen këram yi de wajaala ñu def lillaahi ñu yàlla andaadan ay bokkaale gannaaw boobu nag ñu jëlal def ay bokkaale commencé di jaamuwaat seen këram yi de liyudilla ngir na réer an sabili wa diin al islaam xul waxal yow yonent bi tamma taa yóbbul bi kufri ka ci kéefér sa qalilan yóbbul ngay aji néew de ñoom nag yow wax leen mel ni dafa am ko doon waxaat ci ñoom yëféer nga nga wax ko ne ko yow yonent bi wax ko ne ko ñoom nañ nekk seen kéeféer rek du yàgg rek ak lu mën a am ci xéwal du yàgg léegi tey ñu dee de dundab àddina dafa néew dundab àllaaxira moo ko ëpp de te buñ demee safara lañ jëm de innaka naka yow min asxaabi naari aji bokk nga ci ñooñ safara de a ci yóbbu rek def lu la neex ci àddina nekk ëllëg safara rek nga jëm de aman huwa déet ka moom xaanitun aji jaamu la mu yàlla a ah, wàcc na ci Seydina Usmaan ibnu Affaan daf daan guddi julli daf daan julli guddi ba mu jeex daf daan julli guddi ba mu jeex ci benn ah, ah, ah, ci eh, kaamil alxuraan ba mu jeex di dalee baqara ba naasi ci rakk ak huit heures de moom Seydina ci rakk ak huit heures daf ko daan def de buur ne aman huwa déet ka moom xaanatun eh, eh, xaanatun aji jaamu la mu yàlla ana alleyli ci waxtu guddi saajidan muy aji sujjoon wa qaa'iman muy aji taxaw ya'lalu dana mu ragal dana mu moytu ko al laaxirata al laaxira wa yarju dana mu yaakaar rahmata rabbi yërmaande boromam kooku yemootug aju mooy yàlla de Seydina Ousmane mi nga xam ne daf daan fanaane guddi ci rakk witër dare baqara ba naa si def ko benn taxawaay kooku kuy def loolu di jaamu yàlla di si jootal yàlla ngir def ko rek ngir ragal àllaaxira kooku tollu te ki nga xam ne dafay mooy yàlla de qul waxal hal yastawi ndax dana yemoo alladina ñi nga xam ne na xam nañ walladina ñi nga xam ne laa yaalamuuna xamuñ de jaahil ak aalim bi ñu moom mukk de innama yatazakkaru naka dana mu waaru ulul albaabi borom xel yu sell yele qul waxal yow yonent bi yaa ibaadi yéen jaam sama alladina ñi nga xam ne amunu gëm nañ yi waxal sama jaam yi nga xam ne ñoom gëm nañ yàlla ne leen ittaqu nañ ragal rabbukum borom seen de ba topp ko nañ ragal seen borom topp ko de lilladina ñeel na ñi nga xam ne ahsanu yéwénal fi haadihi dunya ci jile ba topp yàlla lan moo leen ñeel xasanatun aljana de aljana moo de wa ardullahi wa ardullahi suufam yàlla waasiatun aji yàlla mu de innama yuwaffa naka dana mu matal ak fay assaabiruna way muñ ya ajrahum yooli jëf bi xayri xisaabin ci lu benn xisaab de yàlla nag wax na ne nit bu nekkee barab di fa jaamu yàlla te jaamu yàlla ji mante ne ñi ñaa ngi koy xatal di ko waxu ne yàlla si yaatu na de jullit ñi bañ nekkee makka ñi leen di sonal ñi leen sonal seen jaamu yàlla ci la yàlla wax ne ardullaahi waasi'a suufi yàlla si yaana dem leen fu leen neex jaamu fépp foo xam ne nit mën na faa dem pour jaamu yàlla kenn du ko yàqal rek na dem de boo nekkee ci dëkk nga bëgg faa liggéeyal yàlla waa dëkk ba bañ xatal la xatal la génnal dëkk ba demal fa dem feneen de yàlla nag nee na ñi nga xam ne ñoo ba topp yàlla di jaamu yàlla yàlla dana leen fay seen yoolab jëf ci lu dul xisaab de maanaam ci lu dul compter ci lu dul lim dafay bëree bëree ba nga xam ne amul lim de yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi ba laay di wàccee man jaa bil xasanati fa lahu ashru fa lahu ashru amsaaliha balaa ji wàccee yàlla na képp koo xam ne def na benn yiw dinaa la fa dinaa da nga am yoolam fukk yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne rabbi zid ummati ak ak rek itte mu ne yow yàlla dolli la sama xeet dolli la sama xeet yàlla wàccee laa yamatul lazina yunfiquna amwaalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanaabila fi kulli sunbulatin na ñi nga xam ne dundale nañ seen yàlla ñoom yàlla dana leen fay yoolam yool eh, yool bu bëri dana àgg sax ci juróom-ñaar fukk dana leen képp ku def rek yàlla dana fay lu ëpp juróom-ñaar téeméer yoon de yonent bi ba tey ma nga ñaanal xeetam naan rabbi zid ummati yow yàlla dolli sama xeet yàlla wàcceewaat beneen laay ne man zalladi yuqridu llaha qardan hasanan wa yudaa'ifuhu lahu ad'aafan kasiiratan yàlla ne képp koo xam ne lebal na yàlla ci ah, ah, ah, benn rek yàlla dana ko fulandil yoolu yoolu bëree bëree bëree lu ëpp juróom-ñaar téeméeri yoon yam leen waxoon yonent bi ba tey mag naan rabbi zid ummati yàlla nag ne innama yuwaffa saabiruna ajruhum bi xayri xisaabi de dinaa leen fay loo xam ne amul lim de moo baax sallallahu alayhi wa sallam de qul waxaat inni yéen ak man umirtu digaleef na ma an aabuda ba ma jaamullaaha yàlla muxlisan may aji sellal la wu ñal ko addina topp man daal li ma digal mooy ma jaamu yàlla rek sellal ko de woo ngir tu digal nañ ma li an akuna ba ma nekk a muslimina di njëlbeen ak aji jébbalu de man daal digal nañ ma ma nekk ko xam ne maay njëkk jébbalu de xul waxal inni naka man aqaafu dana ma ragal in asaytu ndem mooy naa rabbi ya borom sama alaabu ak ki rabbi ya borom sama alaabu yow azimin ngay aji màgg de man daa maa ngi ragal ne moom ma mooyee yàlla yàlla dana ma mbugal de moo man yàlla rek laay jaamu de qul waxal mm, qul waxal abudu dana ma jaamu laaha yàlla muxlisan may aji sella lawu ñel ko diini diine sama de man daa yow waxal ne leen man dinaa jaamu yàlla de yàlla rek laay jaamu de walis bokkaale faabudu jaamu leen yéen maa shi'tum lu ngeen soob min duuni lu dul moom de xuppe la yéen nag jaamu leen lu leen neex jaamu ko waaye man man yàlla laay jaamu de yàlla laay jaamu yéen neex jaamu leen ko xuppe la de qul waxal inna alxaasirina naka way perte ña alladina mooy ñi nga xam ne xasiru perte nañ anfusahum bopp seen de waa lihim ak ñoñ seen yowmal qiyaama ci fa ca pencam yàlla de alaa tëgg zaalika loolu huwa ñu ne waxal na ñi nga xam ne ñoo perte mooy ñi nga xam ne perte nañu seen bopp ak seen i ñooñ ca péncam yàlla de loolu nag mooy perte dëgg dem ba àllaaxira nga pert say doom perte say ñooñ perte say xarit perte yooyu ñëpp ñu boole leen dugal leen safara loolu mooy dayoo perte de lahum ñeel ne min fawqihim ci kaw seen dulalun ah dulalun ay ay niir ci mina naari ci safara de wala dulalun ay téeg mina naari ci safara de wa min taxtihim aji nekk la ci suuf seen zulalun ay niir mina naari ci safara de wala zulalun ay téeg de ay tabax taaxi kaw yoo xam ne seen kaw la nekk lépp di safara seen suuf yi lépp nekk di safara de ñoom buñ taxawee taxaw ci safara buñ buñ buñ buñ teenee a safara tiim leen de zaalika loolu yuqawifu llahu dana ragalloo yàlla bii ci moom ibaaduhu ay jaawam de yàlla mi ngi ragalloo jaawam yi nag ne na ngeen moytu perte te ngeen jaamu yàlla de ndax bu ngeen jaamuwul yàlla ba perte ah ba perte ëllëg ëllëg safara noonu lay mel de ëllëg safara noonu lay mel ah ci safara ngay taxaw safara moo lay tiim safara moo lay lakk de yaa ibaadi e, yéen jaam sama fattaquuni ragal leen ma yéen samay jaam ragal leen ma man yàlla de walladina ñi nga xam ne ijtanabu teet nañ attaaxuuta xiram an yabudu an yabuduha ba jaamutuñ ko wa anaabu tañ dellu ilallahi jëm ci yàlla lawu mu ñeel leen al bushra mbégte te de ñi nga xam ne nag teet nañ këram ba jaamuwuñ ko dellu ci yàlla ñooñu am nañ ay mbégte yu mag de ñooñu am nañ ay ay bégle te mooy aljana fa bashir bégalal ibaadi jaam sama alladina mooy ñi nga xam ne yastamiuuna danañ déglu alqawla wax fa yettabiuuna ñu topp ahsanu gën jaarafetam de bégalal sama ñoom heure bu ñu jéggee wax wax ja lu eh, wax heure bu ñu wax rek dañuy topp la ca gën a rafet rek ñu ne mooy wàcc na ci Seydina Ousmane ah, ah, ah, ak Abdourahman ibn Awfin ak ñooñu de Ubaydata ibn Jarrah ñooñu nga xam ne ay commerçant la ñu woon dañ daan ànd ak Aboubacar Siddiq ñu dajeeg Aboubacar Siddiq laaj ko ci ban diine nga nekk Aboubacar laaj ko Aboubacar di oo ci lislaam di oo oo leen ci wax ji gën a rafet oo leen ci diine ji gën a rafet ñoom ñu bàyyi leen nekkoon ñëpp ci xiram topp Abubakar de dem jébul ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mi ne alladi ñi nga xam ne yastamiuna dañuy moo tax mi ne fa bashir bégalal ibaad yi jaam sama alladi ñi nga xam ne yastamiuna dañuy dégg alqawla wa fa yattabiuna ñi topp ahsanu gën ci rafet de ulaayika ñoo ñu la gaa yi alladina mooy ñi nga xam ne hadaahum llahu jubal na leen yàlla ulaayika ñoo ñu la gaa yi hum ñoom ulil albaabi ñooy borom xel yi sell yele mu tige ci seen baanam ci képp képp kuy jullit képp ku bëgg lu baax wax eh, eh, eh, yàlla nee na bëggalal jaam yi nga xam ne buñ déggee wax dañuy topp wax ji ca gën a rafet ñu topp ko rek afa man xaqa jëkka war na alay ci moom kalimatul azabi baatam bugal bi te mooy la am la ana jahannama afa anta ndax yow tunqidu da nga génnee tunqidu da nga man fi naar ña nekk ci safara da maanaam déedéet de ki nga xam ne yàlla wax na ne kii daf koy bugal safara lay dem ndax yow yonent yàlla Muhammad salaa kooku bu duggee safara mën nga koo génnee déedéet de mënoo kaa génnee de laakin mu fi nekk àll ñi nga xam ne ittaqu ragal nañ rabbuhum borom seen ko topp ko lahum ñeel leen ay taaxi kaw min fawqihaa ci kaw seen de xurafun ay ay taaxi kaw mabniyatun bari buñ tabax te jiri dana yooyu ne ñeenti ñoom nag ñi nga xam ne ragal nañ yàlla ba topp ko yàlla dana leen tabaxal ay étage yu rafet ca ca de tabax yu rafet yoo xam ne yàlla dana leen ko rabal ci seen kaw ba pare ñu nekk ci biir saal yu rafet yooyu yàlla daal di dewal ci ñoom sewde dana ñëw ci saaru xitaan incha allah sewde bi sàngara la bii ndox la bii meew la bii lem la de ñu hmm. ne waat allah dëxal na ko yàlla ak dëxal laa yuxlifu llahu déefu doxat yàlla almiaada dëxalam de lii yàlla moo ko dëxal ñooñu àljana te yàlla lépp lu mu dëxal jaamam dana ko ko jox de alam tara alam tara kana xamut anna allaha naka yàlla anzala wàcce na mina samaa'i tukkee ko ci asamaan maa am taw fasalakahu tam xarafee ko yanaabi'a ay sewle fil ardi ci suuf summa yuxriju toog mu génnee bi ci taw ba zar'an mbay muxtalifan ngay aji wute alwaanuhu melam de summa yahij topp mu wow ya kana xamuleen ne yàlla moo wàcc jàngatoon nañ ko jaar nañ ci lu bëree bëri bëri yàlla mooy wàccee ndox mi mu jógee ko ci asamaan ñëw saxal gàncax mu tasaare ko ci ci ay mu dem te saxal ay jugee ko ci asamaan mu tasaare ci barab yu bari ñi ngeen man cee bay di génnee ay bay yoo xam ne dañoo wute dugub basi mboq loolu yépp yàlla moo koy def te su ma yëri ci topp mu waal fataraa nga gis ko musfaran muy aju xonq su ma yejaalu topp mu di luñ foñetele gannaaw nga ne musfaran boobu doo ko firee la dégg nga léegi nag ah, ah, ah, kii nag nga gis ko nag moom mu dem ba ci yàgg nga gis gàncax gu nga xam ne weexoon na tàll nga mujj gis ko mu xonq ah, ah, ah, dem wow mel ni ñu fañete ko mel ni fii mbay mosu fee nekk mosuñ fee bay mosuñ fee def dara def moom mu ko saxaloon nga saxal ko nga gis gàncax gi ni nga defee nga toog gisatoo benn gàncax loolu dëgg-dëgg yëpp def loolu xam nga ne kenn la rek ne fii laale gën a nekk ni ci loolu ñu tudd la dikra waare li ulil albaab ñeel borom xeli sell yi de borom kanisa lii rek lay wax na afa man sharaha njëkk ubbi na allahu yàlla sadru danam lil islaami mu jëm ci lislaam ba tub huwa moom ala nurin aji nekk la ci leer min rabbi tukkee koo ci borom de ki nga xam ne nag yàlla ubbi na dënnam ba mu gëm yàlla dugg ci lislaam ba yàlla jubal ko mu dugg ci lislaam loolu leer la goo xam ne ci yàlla la jugee koo dem ci xolom mu mën a de fa waylun tatak mbugal fa waylun xurma safara lil qaasiyati wooyu wow ñu xulubuhum ay xol seen min zikrillahi ci tudd yàlla ñi nga xam ne nag mbugal ñeel na safara ñeel na mooy ñi nga xam ne ir bu tuddee yàlla rek seen xol wow de ulaayika ñooñu la gaa nekk leen ci leen mu binin ngay aji bit mooy ñi nga xam ne ir buñ tuddee yàlla rek ñoom seen xol yi daal di wow de mooy yéeféeri fuñ tuddee yàlla ne wéetal leen yàlla wala ñu tudd alquran rek nga gis seen xol yi commencé métti de seen xol yi waaw duñ dégg alquran duñ dégg yàlla de allahu yàlla nazala wàccee na ahsana alxadis yi gën jële fi waxtaan kitaaban muy alquran mutashabihan muy aji nuroo lenn li dafa nuroog lenn li masaaniya muy ñaar ñaar bu indee defal indi tëkku bu indee àl dina indi sabara de tuddee nañ ko xadis ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan géew ak saxaaba yi di waxtaan di leen waxtaanal jëm ci alquran moo tax ñu tuddee ko xadis waaye alquran du xadis de ndax daf daan waxtaan ak saxaaba yi ci alquran de hmm. tax yaru dana mu lox minu ci alquran juludu ladina léegi ñi nga xam ne yaxsawna danañ ragal rabbum borom seen zumma ca lii topp dal juluduhum xol seen ah juluduhum deg seen wa bu ak xool seen ilaa zikrillahi dem ci tudd yàlla de yàlla nag ñi nga xam ne ñoom gëm nañ yàlla booy jàng ci ñoom alquran da gis seen der yi ni muy loxee ngir ragal yàlla nga gis seen xol yi ni muy dalee ci alquran de alquran jur ñuy jàng ñi gëm yàlla ñoom alquran dafay dalal seen xol ba pare tamit bu ñuy jàng alquran seen yaram yi day lox de ndax wax ji fi mu bàyyeekoo ci yàlla gi bàyyeekoo moonte moo buñ dajaan eh, yonent bi eh, sidna Omar bu gisaan Aba Moussa al Ashari daf koy woo ko kaay nga neexoon baat buy jàng alxuraan saxaaba yëpp di jooy de yi mus ñoo ci dajee tàqalikoo te jàng alxuraan te buñ jubal yàlla yax ji dana mu jubal ku mu soob yàlla nag mooy jubal ku mu soob de ah fa man yudlil wa man yudlil ku réeral na ko laahu yàlla famaa lahu de di ñeel ko min haadin aji jubale de aji jubal yàlla ne képp kum réeral kenn mënu laa jubal afa man yattaqi dekk dana mu sànni bi wajihi ca xar-xaramam ba sual adaabi ñaaw ak mbugal yowmal fu pencim yàlla kooku ki nga xam ne yàlla jël na ko sànni xar-xaramam ca ca ca safara ca pencim yàlla kooku emootit koo xam ne yàlla dana ko jël dugal ko àjjana de duñ emoo mu ko def waxiila waxeef li zaalimiina ñeel way tooñ ñi te mooy yéefiri màkk zuuqu mos leen maa kuntum la ngeen nekkoon teg di buuna doon fàggu ci bàkkaar de kazzaba wéeti na alladina ñi nga xam ne min qablihim aji nekk leen ci njëkk seen te mooy yonent yi faataahum te dikkal leen alazaabu mbugal min min haytu laa yashuruna ci foo xam ne yéguñ ko de ñu nga xam ne nag dañoo weddi woon seen yonent yi mbugalam yàlla daf leen dikkal te ba mu leen dikkal daf leen a bett te ñoom yëguñ ko woon ne mbugal dana leen dikkal de fa azaaqahum llahu te mosal leen yàlla alxisiya alxisiya toroxtaande de àddina wala wala azaabul alaaxirati te mbugalam alaaxira na akbaru moo gën a màgg law kaanu doon te nekkoon mu la di loolu kon boobaa duñ weddi de kon deneen jaamu yàlla de wala xad naa ñun def nañ linnaas ñeel ñi fi haadal quraan ci bi lay min kulli masalin tukkee ci bépp lépp laallahum ndax ñoom yatadakkaruna ñu waaru ko gëm de quraanan alquran arabiyan de ka jóg yaaram gayra bi ay wajin duumu aji lënt de laallahum ndax ñoom yattaquna ñu ragal yàlla de yàlla nag bépp lépp boo xam ne bu ko léebalee waa màkk dana leen tax ñu gëm yàlla ah, eh, eh, gëm yàlla bàyyi seen xarit yàlla léebal na leen ko de ci alquran alquran gi nga xam ne dara lëntut ci dara wute wute lépp ci yàlla la jugee de daraba def na laaw yàlla masalan léeb rajulan waay ñu nu fi fii nekk na ci moom suraka u way bokkaale mutashaakisuuna ñuy way xëccoo wa rajulan ak waay salaman jagoona li rajulin ñeel kenn al yastawi yaani ndax dinañ emoo masalan ci misaal de ci léeb maanaam déere duñ ñeemoo mukk mooy jullit bi mukk mukk mukk rek ñi nga xam ne jaamu ko ci xërëm gi dafa misaal ñu ñaari jaam lañu benn jaam bi ñetti sang la am sang bi bu xëyee na ko damal nga taxani kii na ko dama nga bàyyi kii na ko kii na ko damal ci teen bi nga rooti te ñoom ñaar du ci bañ topp kenn ndigalam jaam boobu ak jaam bi nga xam ne moom benn sang rek la am et bu moom lay déglu mu ne ko dama def mu def ko ñëw noppal ñaari jaam yooyu ndax danañ tolloo duñ tolloo mukk mooy jaamu ko ci këram bi ak ki nga xam ne mooy jaamu yàlla de jaamu ko ci këram bi yàlla yu bëree ñu taxaw ci kanamam borom yu bëri ñu taxaw ci kanamam mooy lan mooy dana dem jaamu këram naan sàngaraan ko mooy yàlla nga fa mu ngay toog lu nekk man ko de njaaloo man ko loolu yëpp ay borom yoo xam ne dañ koy oo mu ñëw ci ñoom jaamu këram bu xëyee dem jaamu këram bee jugee fa dem jaamu këram bee jugee fa dem fee jugee fa dem fee kooku yëpp mu wutal koo xam ne moom yàlla kese lay jaamu yàlla rek lay jaamu amul beneen borom bu dul moom de dafay diri seen mbaanam ba tey bépp ne bépp taalibi boo xam ne dafa em ci sëriñam rek kooku duguteeg taalibe boo xam ne am na fukki sëriñ am na ñaar fukki sëriñ duñu amoo mukk de kee moo koy gën a noppul ndax kee kenn rek lay déglu waaye hmm? fii nekk ñëw suraka way bokkaale mutashaaki su nañuy way xëccoo wa rajulan ak waaye eh, eh, eh, salaman kooku jagoone li rajulin ñeel aswaay aliestawi yaani ndax dañu amoo masalan ci lépp mukk duñu amoo mukk de alhamdu cant lillahi ñeel yàlla ban bàyyi ak këroom gën ji bëri ci waa Màkka laa yàlla mun a xamuñ loolu de euh, ñu bëri xamuñ loolu waa Màkka nag mbiri yonent bi sonal leen ye ci ñoom ñoom ñu ne mbiri yonent bi daal daf ñee sonal yonent bi daal fexe na daal jaxase nañu tasaare ne suñu mbooloo yi def na lu nekk ah utal ñi yàlla ñoo xam ne bokkut ak ah yàlla jañ xamoon na nga waaye amul problème nañ nañ ko mujj ni ko léegi tey mu dee buy dee rek ñu noppalu bu dee rek ñu noppalu ñu nekkaat ci la buur daal di wa di wàccee laaya ji de da ko innaka naka yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma yiitun aji dee nga mu de comme da nga waaye wa innahum naka ñoom it ma yiitu na way dee lañ de kon ana ndokk gi ñoo yow da nga dee ndax bés dana ñëw nga dee loolu moom ndax bépp bakkan bi dund rek dana dee bés dana ñëw nga dee waaye ndax yow boo dee ñoom dañ fi des ñoom it ni nga dee ñoom dañuy dee kon ndokk gi amul mu innakum topp nag ñoom taxtasimuuna dangeen xuloo yawmal qiyaamati fa pencam yàlla ñoom ñëpp nag dangeen xuloo ca pencam man azlamu buur ne kenn fa man man kadaba ka nar na alallaahi waral yàlla ba kay utal bokkaale ak doom de kenn tooñu kenn fenn lu du koo xam ne dafay utal yàlla doom ne yàlla am na doom wala yàlla am na ay bokkaale de wa kazaba tam weddi bisidati ci alquran de jaahu ba dikkalee ko ah, mu weddi alquran nag bi nga xamee ne alquran dikkal na ko mu weddi ko ne lii ci jahannama maswan sax waay lil kaafirina ñeel way weddi ñi ankay waaw waaw ñu yàlla ñëpp seen sax waay mooy safara de wallazina ka nga xam ne jaa a dikk na bisisati ci dëgg te mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mooy abubakar siddiq ulaayika ñoo ñu yàlla maa yashaa'uuna min soob ndarab bi nga xam ne nag moo dëggu ak ki ko dëggal ki dëgg ki indi dëgg gi muhammad sallallahu alayhi wa wala ñu ne mbooleem dëgg laa ko de ñu ne du abubakar jullit ñëpp la bàyyi bi ne bu fekkee ne du Aboubacar jullit ñëpp la Aboubacar mooy boppa de ndax moo njëkk gëm yonent ci yàlla Muhammad xam ne àddina bi ba sosoo ba tey ñett ñi ñoo fi ma ñoo fi mos nekk mooy kuy oote jëmee ci yàlla ak ñu ko dëggal ak ñu ko weddi ba àddina sosoo tey bu bésab tey ko dëggal ak ñu hmm. ko dëggal aljana lañ jëm ñu ko weddi jëm safara de lawum ñeel na leen ñoo ngi koy ni maa yashaa'uuna lu leen soo inda rabbihim fa borom seen de zalika loolu jazaa jazaa'ul muhsinina mooy fayag way rafetal ñe de li yukaffira dana far ngir na dana far laahu yàlla anhum ci ñoom aswa alladina gën jalaala amilu jëfoon nañ ko de ah aswa allazi aswa allazi gën ca laala amilu jëfoon nañ ko way ziyawum daf na fay leen ki ajrawum yooli jëf seen bi eh, bi ahsani allazi ci gën jaa rafet la nga xam ne kaanu nekkoon na yaamalu na doon jëf ko de ñooñu nag yàlla dana leen baal ñi nga xam ne ñu dëggal yonent yi yàlla dana leen baal seeni bàkkaar ak luñ mënoon a def ci bàkkaar bàkkaar lim rëy rëy yàlla dana leen ko baal jéggal leen ko de difiyatul kalbi ci saxaaba yonent bi la bokkoon sallallahu alayhi wa sallam moom dixiya dund na ci lis dund na ci kéeféer lépp ci mooy yàlla la ko def rey na julli nit ñu bëri ba julli ñi dañ koo bañoon sax ba yàlla tàmbalee ci xolom lislaam nag mu bëgg dugg ci lislaam yonent bi sa alayhi wa sallam julli fajar ba pare rek jibril jiitu ko fa ne ko sa boroom nee na Dihya mi ngi ñëw de pour dugg ci lislaam yonent bi xam ne saxaaba yi niñ ko kii woon niñ ko melee woon ndax ñu bëri daf leen rey ci julli ndax dafa amoon doole man a xeex ba mu ne tëdd di ñëw rek yonent bi génnee kaalaam rek lalal ko ko ne ko bismillah mu yëkkati kaala gi di foon ko ne jikko yi may teeñ fii dara jikko gënu benn jikko gënu leen ñëw daal di jooy wax yonent bi ne ko damaa bëgg dugg ci lislaam de yonent bi wax ko baati seede yi mu mu mu gëm yàlla ni ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna ah, ba nga nekkee ci kéeféer yàlla defal la ba nga ba nga ñëw gëm yàlla looy jooy di ñu ne damaa xam ne dama am lu ma xelaat xam ne dama nekkoon nit koo xam ne ci sangi arab yi laa bokkoon bewoon bokkoon ci ñi nga xam ne dañuy bëgguñ am doom ci jigéen mayu ko muy sëy juróom ñaar fukki doom yu jigéen jur naa leen ku ci dem ba mot a am jëkkër rek ma rey ngir bañ ñu am jëkkër loolu laa xam ne yàlla duma ko baal man dama baal lu ne waaye bii moom yàlla duma ko baax yonent bi daal di gert taxaw teg di déglu béew yàlla bi lu mu wax rek moom bu àtt ñëwaat bu ko xamutoon rek daf naan teg di déglu béew yàlla bi moo tax benn borom xam-xam bu mag wax na ne ñaar fukki at ak ñett et bu suuf gagee rek asamaan gàgganti ko de mooy lan heure boo xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko masala mu ci suuf moom day déglu malaw laalaa de bu ñëwee rek wax ko mbir bi noonu nag yonent bi ne teg jibril wàcc ne ko sa borom dégg na liggéey yi wax yëpp waaye ne ko jéggal nañ ko mboolem bàkkaar yi defoon juróom benn fukki at yi lu tax du ko jéggal bii kon yàlla jéggal ñaaw la ca gën a ñaaw ak lu lépp yàlla jéggal na ko saxaaba yi ne yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lii di yee rek moo ko yelloo yonent bi ne leen déedéet jullit ñëpp ñoo ko yàlloo def ba laa ilaha illallah rek ci la ko yàlla baal mbooleem bàkkaaram de kon nit ki bu dundee junnee at sax ci kéeféer mu xëy bés seede ne laa ilaha illallah yàlla dana ko génnee ci ci kéeféer dugal ko ci aljana de moo tax mi dana leen fay fay bu rafet de afaala tafdil bi doo ko jël doo ko firee firee boobu ndaxte dafa mel ni kon yàlla dafay jël li nga xam ne moo gën a rafet mu baale ko li nga xam ne gën a rafet mu du ko du ko baale bu demee kay bay baale la euh, euh, euh, bu day baale kon li gën a ñaaw bàyyi li loo xam ne ñaaw ji demeewul noonu déedéet na muy baale lépp lay baal yu ndaw yeeg yu mag yeeg yu bon yeeg yu baax yeeg yëpp lay baale moom. Ah, lépp loo defoon ci lu bon ak lu man ci toll lu ndaw ak lu mag yëpp noonu la ko yàlla di jéggale de fay gi tamit nekkul ne bu lay fay day seet sa jëf yi nga gën a rafet mu fay la ci déedéet jëf yëpp la lay fay de jëf yëpp la lay fay de ñoom ma ah, ah, loolu nag ba mu kon noonu la buur ne alaysa llaahu ndax déet yàlla bi kaafin muy aji doy am doyul jaamam ba de ndax yàlla doyul jaamam ba de ankay doy na ko de waa Màkka dañ doon xupp yonent waa ne ay kii dafa rek rek bu tere mi dana ko àll ne wayu xaw yi wayu xaw yi fuu xaw yi fuu naka la ragal loo billadina ca da nga xam ne de te mooy tere mi kaa Màkka ñu ne Muhammad moytul suñ tere mi moytul suñ tere mi suñ tere mu sa xel mi de moytu buur la ndax yàlla doyul jaamam enquête doy na jaamam te yàlla doy na yonent bi yàlla rek doy na yàlla rek doy na ko seen xëy ci dara na xërëm yëpp de joxoñ leen itam bi jaal xaq wa zaatal baatilu nel baatila kaana zahuuqan de xërëm yëpp daal di def benn ndërmeel def benn groupe daal di génn ci kaaba ñoom ñëpp ñu tasaare leen bañ jeex ragalul leen di mukk. alhamdulilah kuréel na ko yàlla. fa maa lahu de di ñeel ko min haadin aji jubal de yàlla nag képp ku réeral kenn mënu laa jubal de wa man yahdillaa waaye ku jubal na ko yàlla fa maa lahu de di ñeel ko min min mutlin aji réere de alaysa llaahu ndax de yàlla bi azizin muy aji not ci mbiram si intiqaami kay borom ak fayu de ay noonam an kay wala in saaltuhum wallahi ndem laa nga leen yéeféeri màkk yi nag boo leen laajee ne leen man xalaqa ka bindi asamawaati asamaani juróom-ñaar wala rek suñu juróom-ñaar la yaqulun na xal nañoo wax laaw yàlla de luñ saay saay saay saay saay saay boo leen laajee na leen kan moo bind asamaan juróom-ñaar ak juróom-ñaar yàlla la ñuy wax de loolu moom ñoom dëppoo nañ ci xul waxal abaraaytum da ngeen ko min mooy kere bi in araadani yallaahu na mun na ci man yàlla bi durrin ci lor alhun na ndax ñoom kere mi kaashifaatu durri woy hun ñi lañ ak ak lor de maanaam déere waaye yéen solo leen man bu ma jaamoon leneen lu dul yàlla yàlla bëgguma lor ndax seen crème yi man damaa défendre ko lor gi do ak si man maanaam wala mun na wala mun na mu man bi rahmatin ci maa ne de alhunna ndax ñoom mum si kaatu rahmati yi woytee leen yërmande yàlla googu de xéewalam nga yàlla moo bëggee jox xéewal ndax seen crème yi man damaa tere ñu ne ko déedéet de déedéet de maanaam crème yi mënu dara mënta joxe mënta lor mënta def dara de kon nag ku ah xul waxal xasbiya aji doy na wallaahu yàlla kon man yàlla doy na ma yàlla mën na loolu kon man yàlla doy na ma alay ci moom yatawakkalu def na dëgërlu al mutawakkiluuna way dëgërlu ñu rek mujjeg laaye saba mun ji yaata ngoog nag waxoon nañ leenoon ko dalee ci dalee ci xul lan yusiibanaa illaa maa kataba allaahu ñaari aaya la jàngatoon nañ ko mujj gaa ngi noonu de Seydina Ali wax na ne képp koo xam ne xëy na jàng saba mun asamaan ak suuf bu doon taqaloo sax yow dañ ci mucc de wa Seydina Ali wax ne képp ku koy jàng sabaa mun jiyaat dal ci bés bi rek man laaj moo ko def loola loola dal ci bés bi ci lor rek laaj moo ko def xul waxal yaa qawmi yéen sama i'malu jëf leen alaa makaanatikum ci mbir seen nii naka man aamilun aji jëf lu ma ci sama mbiri bopp de fa sawfa ta'lamuuna xam ngeen xam man ya'tiika dana dikk azaabun mbugal yu'zii def na toroxal ko wa yaxillu te def na wàcce alay ci inna naka ñun yàlla anzalna wàcce nañ alayka ci yow muhammad alkitaaba alquran li naas ñeel ñi bil xaq ci dëgg de wa man ihtada ku jub na fa li nafsi ñeel na boppam de wa man dalla ku réer na fa innama yadillu naka dana mu réer alaya war a boppam de wa ma anta dir yow bi wakilin ngay kuñ ngay kuñ ngay kuñ mënante ki alayhim seen kaw de ki boo kiirin ngay koo xam kuñ aji mbaru nga ki alayhim ci seen kaw doo koo xam ne da ngay da ngay mburu seen kër yow wax leen ne man ma yónni rek wàccee ci man alxuraan yàlla moo ko kon ku réer réeram moom la ñu yàlla man yàlla li ma sant rek laa def rek allahu na faat lan sa bakkani ina mawtiha waxtu deesende wallati waaye dana faat bakkan ba nga xam ne lam tamut deewut fii manaamiha ci ngalawam de fa yumsiku def na jàpp allati ya xam ne xadaa dogal na aleyha ci moom almawta dee wa yursilu def na boyal uxraa beneen bi ilaa ajalin jëm ci dig musamman ba di buñ tudde te mooy pencam te mooy deere yàlla nag moom mooy rey bakkan bu nammee dee bàyyi day wax ne malakul mawti mooy rey waaye mëtta mëtta mëtta ragal ndax mënta rey kenn fekk yàlla jox ko ndigal fekk yàlla jox ko ndigal mënta rey kenn yàlla da koy jox ndigal rek ne ko reyal mu mu rey te moom sax rey yàlla mooy rey de yàlla nag mooy rey bakkan bu diggam jotee moom moo koy waaye du dara ku dee rek yàlla bi nga xam ne moom yàlla rey ko dana ko faat ci nelaw doomu aadama ñaar moo nekk ci moom muy bakkan ak roxo ñoo nekk ci moom roxo gi moom moo koy dundal muy mën a dund roxo gi mooy mooy nekk ci moom muy yëngatu roxo mooy def loolu bakkan bi moom moom lay xàmmee ci la xàmmee gi nekk ak dégg gi ak gis gi ak wax ji ci la bakkan bi nekk roxa gi nag moom moo koy roxa gi nag moom moo koy dundal léegi nag bakkan bi nga xam ne nit ki buy nelaw nit ki buy nelaw yàlla dafay rocci bakkan bi day rocci nafsu bi bàyyi fa roxo bi rocci na nafsu bi mooy bakkan bi bàyyi fa roxo bi ndax roxo gi moom lay dundee loolu moo tax kuy nelaw yaa ngi koy fekk mi ngi nokki ma ngay sànni loxo ma ngay sànni tànk rawatina bu nekkee ku tere ndax roxo gi moo koy defal loolu waaye yàlla day rocci bakkan bi bakkan bi daf koy rocc du yëgati boo waxee du dégg du xàmmee ci dara ndax lay xàmmee ci moom ak lay dégg ci moom loolu dañ na yàlla moo ko dindi bàyyi ko roxo gi rek bu fekkee nag ne moo tax roxo bu fekkee nag moo bakkan kum génn ci yow doo dee lu ñu tuddee nafs kum génn ci yow doo dee waaye roxo kum génn ci yow dee roxo moom kum génn ci moom da ngay dee dee dee ngay dee waaye nafs moom kum génn ci yow dee dee ku daw loolu moo bakkan bi waaye buy nelaw yàlla da koy rocci bakkan bi nafsu bi lay rocci bàyyi ko de bàyyi ko mu nelaw bu waxtu yeewu jotee rek mu joxaatu bakkan bi mu mën a xàmmee di yëg di dégg wax di nàngam ak nàngam su fekkee nag yàlla daf ne diw mii ci nelaw yi lay dee nelaw yooyu moom nit ki di ci yeewu buy rocci bakkan bi rek daf koy boole roxo bi moo tax lay dégg ñu dafa tëdd rek dee dafa tëdd rek yow dee fekk moom dee moo jot diggam moo jot rek mu dee bu fekkee nag warta dee yàlla daf koy delloowaat bakkan bi de kon ndax dégg ngeen li ma wax mm-hmm. mooy doomu aadama roxo moo nekk si moom ak nafs mm-hmm. roxo gi moom moo koy dundal moom moo koy def mouvement yi def yëpp ci roxo gi la koy defee mm-hmm. waaye xàmmee gi ak dégg gi ak lépp mën a xàmmee wax mën a gis mën a def yëpp loolu ci bakkan bi la aju nit nag buy nalaw bakkan bi dañuy rocci bàyyi fa roxo gi su fekkee nag dafa dee yàlla dafay rocci roxo gi bakkan bi yëpp lay rocci mu dee rek moo tax dee jërta ragal ci ñu koy ragal jërta dee jërta ragal ndax nit ki waxtu nekk yàlla dana ko misaal ci moom misaalam dee ba bu set dana ko misaal ci moom misaalam dee ndax moom dee na dee gu ndaw waaye yëgul ko nalaw mooy dee dee gu ndaw moo tax ku weddi dee rek xoolal nalaw de ku weddi dekk it rek xoolal yeewu moo tax buur ne allahu yàlla yatawafaa dem na faata lan fu sa bakkan ina mawti haa waxtu dee seen bu seen dig jotee yàlla moo leen ni faat de ngeen dee wallati dana mu faat bakkan ba nga xam ne lam te mu deewul fii ma naamee haa ci nelawam bakkan bi nga xam ne nag moom digam jotul yàlla dana ko faat dindi bakkan bi bàyyi xoroxo gi de fa yum si ku dana mu téye yàlla ti bakkan ba nga xam ne xadaati naa de yaa ci moom al mawta dee bakkan bi nga xam ne moom yàlla wax na ne kii dafay dee noonu lay continuer du eewu mukk de wa yursilu def na bo def na booyal doxalaa beneen ilaa ajalin jëm ci dégg de boo yeewoo nag nga sa dee bakkan ngay yëngatu di wax ak di xàmmee di def lu nekk de ne fii daal di gën a gën a nekk ne ci loolu tudd laa ayatin tegtal yafa mi ñeelaw ni yatafakkaruna ñoom de ah, ah wax na ne yàlla moomu nga xam ne moo leen nalawloo yaa gannaaw gi mu yee loolu man nga ci demee dekki de nalaw nag am na ay teg yi ni nalaw nit ki buy nalaw teg ni nalaw mooy mu jàpp ba set bu jàppee daal di tëdd ci lalam tëddee wàllu ndeyjoor loolu la war a tëddee loolu mooy teg yi ni nalaw bokk na ci ay azkaari nalaw mooy booy nelaw bañ sa noon bu mu la mënal dara luy def fexeel ci guddi du la dal boo jàppee ba seet tëddee sa wàllu ndeyjoor jàng fukki qul huwallaahu ak benn nga jàng ko yàlla dana la musal de boo paree nga jàng falaqeeg naas mu awasatayni nga tafli ko sa loxo raay sa jëmmu yëpp lépp loo xam ne day lor rek du la lor ci guddi ga de da nga mucc ayatul kursi ku koy jàng ci guddi booy tëdd yàlla dana la musal de nit ki nag bu demee malaaka bi àndoon ak moom ci bëccëg gi ak seytaane bi dana ñëw bu ñëwee ngay gis seytaane bi daf naan lay sa yi tey bi mujjee ko ci lu xay mujjee ko ci lu bon malaaka bi ñëw naan lay mujjee ko ci lu baax de mujjee ko ci lu baax mujjee ko ci lu baax su fekkee da nga mujjee ci lu baax mooy tudd yàlla laa ilaha illallah jàng eh, eh, yooyu ma la wax tudd yàlla da ngay nalaw nalaw yu neex boo yeewoo sa xol bi dara du ci nekk lu dul bëgg yàlla rek moo ci nekk da yeewu jàpp rek julli bu fekkee nag ne ba ngay tëdd danga danga danga fàttee tudd yàlla seytaane bi dafay ñëw nekk sa xol bi di fa takk fa ñetti pas-pas la takk boo yeewoo boo boo tuddee yàlla benn pas-pas bi dañ boo jàppoo beneen bi dañ boo jullee beneen bi dañ di nga sawar ci bëccëg bi def lu neex bu fekkee nag mujjee nga lu baax malaaka bi dafay ñëw sa yére yi nga simmi dafay nekk dina jaamul yàlla dina la jaamul yàlla bu bët set hmm. mu delloo wàlla jaamu gi yëpp yow la koy jox de bokk na ci askaari nelaw nit ki buy nelaw mu wax baat yi baqiyaatu saalihaat mooy wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñeenti euh, euh, fanweeri yoon ak ñeent mu wax ko wax subhanallah subhanallah fanweeri yoon ak ñett wax alhamdulilah alhamdulilah fanweeri yoon ak ñett yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku ko wax njëkk ngay nelaw yàlla dana la jox ci yiw loo xam ne kenn du ko am lu dul ku jëf li nga jëf rek de allahu akbar allahu akbar 34 ah, subhanallah 33 alhamdulilah alhamdulilah 33 képp ku ko wax booy tëdd rek yàlla dana la jox yiw de sayyidatuna fatimatu zahra radiyallahu anhu doomu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dafa uh, yàlla moom mooy jigéen jigéen ci jigéen ñi yàlla booy woon ko ak Seydina Ali ibn Abi Talib mi gën a ñàkk ci saxaaba yi ëpp xam-xam moo gënoon a ñàkk waaye moo ci ëpp xam-xam waaye amutoon dara Fatimatu Zahra dem sëyal ko amutoon dara laaj duñ tëdd sax amuñu dara amuñu Seydatuna Fatimatu Zahra bu daan sonn la moom moo daan wal moo daan dëbbal boppam mooy dem ca toon ba wëggi ci ci ci teen ba wëggi moom mooy ganale moom mooy def lépp mooy togg mooy def lépp mu def ko wal naa wal dëbbu naa dëbbu ba loxo wow mu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa fekk benn mu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yonent bi dama bëgg de nga jox ma benn xale boo xam ne daf may jàppale ci liggéey bi de ndax gis nga wal gi ni mu def sama loxo wal naa ma sama loxo yi yàqu yeneen tamit ne ko maa li wali wali dunia maa li wali dunia loolu ñeel ci àddina àddina loo ci hmm? soxla àddina amul soxla waaye kaay ma jox la rek lii nga koy def boo ko defee rek kenn du am yool bi nga am lu dul ko def ni nga def de mooy deel sabal yàlla di wax la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah mooy deel tudd yàlla hmm. deel wax allahu akbar allahu akbar fanweeri yoon ak ñeent ngay wax subhanallah subhanallah fanweeri yoon ak ñett ngay sant yàlla fanweeri yoon ak ñett de képp koo xam ne eh, def boo ko defee da am loo xam ne da am yool boo xam ne kenn du ko am lu dul ku jëf li nga jëf rek moo koy am de Sayyidatuna Fatima Zahra nekk ci loolu de bés moom Sayyidatuna Fatima Zahra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na kër Sayyidina Ali ba ñëwee pour seeti ko ba ñëwee taxaw ci bunt ne salaamaaleykum fekk mi ngi àndoon ak ay saxaaba Seydina Fatma Zahra ne ko yow de man ngaa dugg si ndax su ma bàyyi waaye ñu si des nañ toog de ndax man aw ma yére ñu ma maa ngi nii rek toog sama néeg aw ma yére mu ma sol waaye yow mën ngaa ñëw sama armante loolu yëpp mooy ñàkk gi mu ñàkkoon waaye tey jii muñ googu mu muñoon tey barke wàcc na ci moom de kon baat yaa ngoo kuy nalaw rek nga koy wax nay wax allahu akbar allahu akbar fanweeri yoon ak ñeent wax subhanallah subhanallah fanweeri yoon ak ñett wax alhamdulilah alhamdulilah fanweer yoon ak ñetti képp ku koy balaa ngaa nelaw nga def ko yàlla dana la jox yi woo xam ne kenn du ko am lu du ko def ni nga def de bu leen di fàtte fukki kul wallaahu ak benn ak tëddee ndeyjoor tëddee ndeyjoor moo gën ci tëdd de ñetti tëdd moo am tëdd dëpp ak tëddee càmmooy ak tëddee ndeyjoor tëdd dëpp moom ah, ku koy def rek moom da ngay fàtte yàlla moo tax balaa ngaa mën a nelaw dégg nelaw kat yi dégg ñoom foog ñi dëpp de mm. foog ñi ndax boobu boo nelawee doo yëgiti dara dara doo ko yëg yàlla bu fajar ñëw buñ ne allah bu ba asalaatu xayru mi ne bi nga teg caat mbàjj gi rek ndax nalaw boobu lépp ñu ne mooy tëdd seytaane loolu kenn waru boo tëddee tëddee càmmooy ah, tëddee càmmooy moom moo ci topp moom moo ci gën tëddee sa wàllu càmmooy moom moo ci topp waaye tëdd yi bi ci gën mooy tëddee ndeyjoor de mooy tëddee ndeyjoor moo gën ci tëdd tëddee sa bopp jublu ndeyjoor loolu moo gën ci tëdd yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la daan tëddee wël yi noonu lañ daan tëddee de laaj nañ yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko lu tax ngay tëddee tëdd bi mu ne gannaaw moom laay mujjee dama koy jéem a miin de ndax moo demee ci bàmmeel moom laay tëddee dama koy miin fii ci àddina ndax moo demee ci bàmmeel mbir mi du ma déranger de mhm. ah amit taxasu jàpp nañ amit tabasu jàpp na ñoom yéeféeri Makka hmm? jàpp nañ jàpp nañ ñoom yéeféeri Makka min duni laay du yàlla de muy ay ci ay këram ñu di woy ramm ñoom jàpp nañ seen këram yii moo leen di ramm moo leen di ramm xul waxal ah yes ki ah ndax dana ramm seen xel yooyu ndax dana ràmm walaw kaanu doon du nekk nañ laa yamlikuuna moomu shay an dara wala yaqiluuna te xeluñ seen xelam yi ñoom mënuñ dara xeluñ naka la ñu ràmmoo def xul ñeen yàlla ashafaatu ràmmu jamian boole seen ràmmu daal yàlla mooy mooy ràmmu jaamami de mooy ràmmu jaamami waaye kenn mënta ràmmu kenn de ñun àddina fukki yëpp la ñuy tiitaroo alal ak askan ak taar ak ay xarit ak nangam waaye loolu yëpp yàlla wax na ne moom jëriñu pencam yàlla rek alal lu mu bëri bëri su fekkee nit ki gëmul yàlla alal la amul benn njëriñ ci moom ndax alal bu doon jëriñ man a ramu kon dana ramu xaaroon dafa xasaf naa bi yow bi daari la ard moom dañ koo boole moom ak alalam yëpp nural ko ci biir suuf bu doon jëriñ dara doom ju baax bu doon jëriñ dara kon Ibrahima dana jëriñ aasara de waaye yàlla daf ko yaa Ibrahima aari an haada ah, ah, ah, baay bu doon jëriñ kon yaaquba dana dana jëriñ yahudi dem ndax moo leen jur waaye nag askan duñ ko laaj pencam yàlla ba ilaa nu duqa bi suuri wala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluuna fasaxatu du jëriñ dara ca ca àllaaxira de yàlla yàlla wax na laa yamlikuuna laa yatakallamuna illaa man azina lahu maanaam duñ wax sax luñ fasaxa fasaxa keroog kenn du wax lu du ko yàlla jox ndigal ci wax de tedd ak teraanga du jëriñ dara ci yàlla mu jëriñ dara ci àllaaxira mënta mu kenn bu doon jëriñ jëriñ aba ki aba jahli moom moo daan wax ne ñaari jot yi seq màkk amul kenn ku ma ci gën a tedd de pencam yàlla luñ ko wax zuqi innaka antal azizul karim yow mi nga xam ne yaa waxoon yow yaa tedd acca mosal safara matat mosal de <coughs> pexe bu doon jëriñ kon mu jëriñ Quraysh de waaye lu yàlla wax wa makru ulaayka huwa yabuur ñoom seen pexe dafa lamb de mbëggeel bu doon jëriñ euh, euh, kon mu jëriñ Abaa Taalib ndax moo ëpp ku ko bëgg mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye lu yàlla innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yashaa taar bu doon jëriñ kon mu jëriñ tubaab yi ndax ñoo gën a la taar fukki taar fukki fukki xaaj ñoom ñeenti xaaj yëpp ci tubaab yi la nekk de waaye yow mooy tëb yu du wuju wujuhun wa tasbudu wujuhun de keroog taar du ko jëriñ dara dara du ko jëriñ dara de weexaay du ko jëriñ dara dara du ko jëriñ dara ay xarit duñ fa jëriñ dara duñ la mën a raw lan tanfaakum arxaamukum wala awlaadukum yawmal xiyaamati yafsilu baynakum du jëriñ dara de keroog du jëriñ dara de loolu koo xam ne dikkal na yàlla ak xol boo xam ne xol bu sell la de ak koo xam ne ku gëm yàlla la loolu rek mooy jëriñ de loo am alal alal boo fekkee gëmoo yàlla alal ji du la jëriñ dara waaye loo am alal alal alal nga gëm yàlla alal jooju dañ la jëriñ ci àllaaxira de loo am askan askan nga gëm yàlla askan boobu dañ la jëriñ ci àllaaxira de loo man di am ci lu baax rek fekk yaa gëm yàlla loolu dañ la jëriñ waaye su fekkee ne gëmoo yàlla bëggoo yàlla ittewoo yàlla foo man di bokk ak loo mën a am ak loo am dara de dara de du la jëriñ dara fa yàlla de allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allahumma salli yàlla a ko tàmbali ba agsi yàlla nga ko àggale jàmm te bañ cee dem doo yaram yàlla nga xam dëgg-dëgg yàlla nañu ko xamal barke alquran yàlla ak ka wasal ak ki ñu ko wasal ci moom ak li tax ak li tax ñu wasal ko ci moom yaar bi barke diine islam barke tariqa Cheikh Ahmed Tidiane barke maam alhaaji Abdoulaye barke Baye allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa